jiitu. Mhm. xam nga dafa am benn cas boo xam ne nii nee nañ ma nga xewee fële ca ngàcc naw de. mooy euh, te mu dal euh, ki nga xam ne nii moom moo di yaay Fatou mhm. mi nga xam mooy meeru dëkk ba. nee nañu doomam dafa doon dawa dafa dafa jëloon otom doon ko dawal. waaw ba mu koy dawal nag far mu accidenté. Mhm. ba mu accidenté bu am kenn koo xam ne cee ñàkk bakkanam. kooku nga xam ne nii moo ci faatu. Euh, magam dafa wax. waaw magam dafa wax. léegi moom la ñuy jokkool su ko defee mu wax ñu situation bi naka la demee jamono ji Lamine Ndiaye lay wuyoo ma nga dëkkee fële ca Kër Massar Lamine ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay seen naamar ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ah, Lamine wàccee yéen ñëpp seen wàccuwaay ah, Lamine yaa ngi en direct ci 99 point 0 euh, yaa ngi ci Walf FM euh, yàlla ah. dafa def aussi ngeen di dund euh, actuellement ni ak ndax dafa am kenn koo xam dafa ñàkk ci yéen bakkanam te dafa accidenté mm-hmm. yéen a ngi ciy tudd nag doomu ki nga xam moom moo di Yaay Fatou Diagne Euh, ndax ah. mën na ñoo xam mbir mi naka la demee. ni mu demee daal mooy àllarba ci guddi. Hmm. la benn waay jënd benn bëtës Touba. Hmm. Touba saabam la ko jëndee léegi war koo yóbbu Touba léegi nag sama rakk boobu yàlla dafa def moom safaru tracteur la. Hmm. am na permis maam loolu mooy liggéeyam ci aviru avicule te day yóbbu ay day bay. léegi waa fay ko pour mu yóbbul ko tracteur bi Touba. léegi yàlla def mu taal tracteur bi da ko yóbbu bëtës bi sax la doon yóbbu waa ji bëtës bi la jënd mu war a yóbbu bëtës bi Touba. Mm-hmm. léegi yàlla def mu taal tracteur bi lonk bëtës bi da ko yóbbu. Mm-hmm. Euh, ñun daal liñ ci am mooy def na soog mm-hmm. dee na. def na soog dee fi mu defee soog fi la dee. te ki ko fàdd daal daal daal li fi mu defee soog fi mu defee soog ñun liñ ci am mooy sappoor moo ko jël yóbbu ko Kaolack. Euh, bo ci guddi. bët sedd alxames mi li ñu am mooy anduñu si ñëw ñu denc ko. Ah, ndax mën nañoo xam bi ñu demee ba ci bi ñu demee ba ci kanam dañoo foraat ci ay yowu bëy. Mhm. lu doy waar mooy ki ko fàdd. Mhm. doomu yaa faatu jaañ moomu la. Mhm. baayam moo tudd Ahmed Khalifa ñas gune gi mu ngi tudd Basir Niass. 2003 la judd. vingt ans la am. li ñu si gën a métti sax mooy oto bi mi nga xam ne moom la fàddee suñu rakk ji ba mu dellu xaybu oto boobu noonu euh, yaayam moo ko moom. yaayam moo ko moom. yaay moo ko moom li ñu ci gën a soge mooy man li ma xamoon ci ku def soog ba nit wàññi ci wàññeeku ci soog bi mooy ki gaañu mhm. euh, gaa sàppur moo ko war a yóbbu mais fàdd tamit gendarmerie moo ko war a yóbbu mhm. Mhm. mais euh, xale bi bi mu defee soog ba pare mu ngi doon dawal benn Mercedes bu weex bu rafet bu bees fekk yàlla def ko dafa def benn oto bu gën a rafet boobu moo ñëw récupéré ko yóbbu ko dakaar li ñuy gëm mooy nii ne dañ koy yóbbu pour def ay analyse te ñun am nañ firnde yu leer na ba léegi xale bi muy kër baayam li ñu li ñu jàpp mooy sant gënut sant. nit gënut nit ñun ñëpp ñoo bokk ci loi bi mu tënk ñu. ku mën a def dara ak loo mën a doon ak foo mën a bokk nañ ko teg ci yoon. kon kon bu fekkee yàlla def na ñàkk nañ. kon bu fekkente ne la muy dégg naa wax ji dafa mel ni ko kon gars yi dañu bëgg a étouffer problème bi quoi. bëgguñ mu jëm kaw. bëgguñ mu jëm kaw. bëgguñ mu jëm kaw. Hmm. maanaam dañu koo bëgg a mëf mëfal bëgg koo teg ci suuf te ñun mënuñoo ñàkk xale bi ma xale bi nga xam ne moo def soog. Hmm. li ci gën a doy waar Seydina xale bi mu yor ñeenti bant amu ci kenn koo xamante ni am na fukki at ak ñaar. yaakaar naa am bi sax fukki at ak benn laam. maanaam ki nga xam ne ni maanaam ki nga xam ni moom la doomu yaay Fatou Diagne bi rey ci accident. Mm-hmm. borom kër la am na ñeenti bant mm-hmm. am na ñaari jabar bi mu takkee ñaaral sax yàggut. Mm-hmm. gaa ñu na gaa nangu nañ dogal bi yàlla yàlla dogal waaye li ñu mën a comprendre mooy gaa sax daal la norma. li li yoon wax mooy ki def bu bu soog amee ba dee am ca ki doon dawal. ki nga xamante ni moo doon dawal daa la norme yoon da ko war a téye psychologiquement xool ba xam ndax conscience am tranquille na ci biir nit ñëm déet logique mais hmm. lan lañ mën a comprendre ne nit def soog hmm. maanaam oto bu gën a rafet oto bi mu defee soog ñëw jël si ko yóbbu ko dakaar ndax lan ñett la sant te ndeysaan gune gi nga xam ne moo moo moo moo def soog bi noonu ba wàññeeku hmm. amul lum gën a bëgg lurut lurut lurut waa kër bi Ñas li mu gën a bëgg ci àddunaam waa kër Baay Ñas la kon ñun waxuñu ngir ñes la sant wala déedéet dañoo bëgg yoon teg ci yoon dëgg nañ ko fi nekkal dëgg moo fi nekk. maanaam daal yow li la metti mooy ki nga xam ne nii dafa acc moom moo créé accident bi dafa dafa jëlee ay gaañu gaañu. mu waroon a xaar mu waroon a xaar sapeur pompier sapeur pompier daal di koy évacuer waaye finalement oto bu rafet moo ko fa jël daal di koy yóbbu. xale bi deful dara jotu. dara jotu ko moom ah nee nañ. dara jotu gis ah, nga bi nee nañ nee nañ dafa nee de. dara jotu xam nga xale bi lan la mbëkkee. Mhm. moom ci boppam moom moo mbëkk tracteur moo dem nañ ba ca dëkk ba def nañ ay renseignement mhm. ña fa dëkk ne nañ maanaam saa bu ñu seenee xale bi muy ñëw mhm. maanaam ñëpp dañuy daw naturellement noonu lay dawale moom xale bi xale bi noonu lay dawale mhm. te oto bi mu doon dawal du oto boo xamante ni turam moo ci nekk oto yaayam moom la doon dawal bi mu ko mbëkkee ginnaaw la ko mbëkkee yàlla nattu ko tracteur dafa xaw a yéex mu daw mbëkk ko ak doole 4x4 bi mu yoroon dafa am airbag xale bi dara dalu ko 4-4 bi bu la neexoon maanaam soo fa demoon 4-4 bi jëlee nañ ko fa mais soo fa demoon kanam 4-4 bi moo nor mhm. mais ndaw waa ji si boppam waa ji dara na la ko fi mu nekkoon dara nekk 4-4 bu bees la ku xam Mercedes yu bees yi yu luxe yi xam nga ne nit mënu cee nekk mbëkkee ginnaaw ba pare ñu lay jël te waaj ji bu feebaroon wala mu gaañu mhm. Sapor moo jël suñu rakk ñun yóbbu ko hôpital lu tax Sapor du ko yóbbu Kaolack mhm. mais Sapor jëlu ko beneen oto bu ligsi moo jógee koo Dakar Dakar laa la wax ñëw hmm. jël si ko foofu. yóbbu ko Dakar dañu gëmloo nañu dañuy def ay analyse dañuy dem xooli ko xool bi nag mu ngi bëgg yàgg. Hmm. léegi léegi léegi yéen sa rakk yàlla def na génn na àdduna denc ngeen ko. denc nañ ko alxames ci guddi alxames ci bëccëg deux heures lañ ko denc. Hmm. yàlla dafa def dafa jógee ko Kaolack rek ñëw xam nga Saalum moom duñu yàggal dara ñu denc ko. nii autopsie maanaam. kosa kosa bu leer sax wala xamuñ ndax sax ndax assurance dana topp wala loolu sax ba léegi amaguñ ci benn. waaw justement parce que waa waa waa police dañu wax dañ ciy ubbi ab enquête est-ce que ñëw nañ fa. pour déglu leen amuñu gis nga laa la wax de ñu man gisuma bu ñëw suñu dëkk di def ay enquête mhm. gisuma fa dara dara dara ñun daal li ñu am mooy indil nañ ñu néew ñu denc ko. mais mais mais nag autopsie bi mënoon na leeral lu bëree bëri ci dossier amul amul autopsie laa la wax amul autopsie amul dara mhm. xale bi li ko rey bi waa ji mbëkkee oto bi bëtës bi mu lonkoon bëtës bi xam nga dafa am doole bëtës bi moo fekk booy bi fi mu toog dóor ko bopp bi toj mu daw oto bi saa moto bi saaraan dugg ci ron garab yi mhm. noonu la xale bi yem fa la yem ñu yóbbu ko hôpital topp nañ ci def amee dara dafa mujj gaañu ñu denc ko euh, xale bi naka la tudd euh, ñaata at la am ak it mu ngi tudd nuuru mu ngi tudd nuuru diine njaay euh, ban dëkk la fekk ba mu ngi tudd maanaam ñun ñu ngi dëkk ci commune commune Paoskoto commune Nioro bi. Mhm. département Paoskoto arrondissement arrondissement Paoskoto bi fa lañ nekk. Mhm. Alimaane mooy suñu maire. Alimaane mooy seen maire xale bi xale bi xale bi ko fàdd ne leen yaayam maire la fa mu dëkk. waaye nga ci ndaw de. waaw dëkk maire la fa. Mhm. waaye ñun ñun ñun li yàlla dogal ci ñun ñun nangu nañu ko. mais li li ci li ci métti li ci métti mooy yàlla dogal dogal na dogal bi xale bi gaañu na mais ki rey nit ki ki nga xam ne moo doon daw. te te te ñun man boog man du wax ne man leer na ma de mais dégg naa ci kàddu ku ñuy wax akana ton mu ne xale bi dafa màndi loolu nag leeru ma. dëgg ah, yàlla dafa man dégg naa ci kàddu akana ton mu ne xale bi bi muy dawal oto bi dafa màndi. maanaam àndu àndu woon ak sagoom daal àndu woon ak loolu moom leeru ma ah, akana ton laa dégg mu koy wax ci ci benn live bu mu doon def démb ci guddi. Mm-hmm. Ah, léegi nag ñun dañoo am naxar. Mm-hmm. am loo xamante ni xale bi ñu bi ñu bi ñu rayal nii xale la bu ndaw woo xamante ni avenir ci la nekkoon. 33 ans la am de tabax na kër ba commencé fond de famille ba yor ñaari jabar mais kooku boo ko boo ko boo defee sox mu demee noonu daal la normal li gënoon rafet sax Ahmed Khalifa Niass dafa waroon dëgg tànkam na ñëw ñu siggil di gaale hmm. mais fi ma wax ak yow nii kurut ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom deret amul kenn kuñ fa gis. yaay yaayam ñëw na fa. dégg naa ko mais man gisuma ko. ñëw na ko. Hmm. yaayam dégg naa ko mais man gisuma ko mais li gënoon a rafet. Hmm. mooy yoon moom na def liggéeyam ñun loolu la ñuy ñaan ndax ñun amuñu lurut maanaam naqar daal am nañ ko waaye bëgguñu tamit am naqar ba pare mel ni dañoo seppi ci biir dëkk bi wan ñu nañu ñun nii lañ sant ki nii la sant kooku du parce que bu doon baadoo la moo def lii hmm. wallahi Seydina Omar di yoon dina ko teg loxo ak nu mën a demee dina ko teg loxo xool ba xam ndax yaa quelque chose mais amuñu benn benn benn fi mu toll nii benn piste buñ jàpp ñu ne fii lee ci lii la suñ doom daal dee na hmm. denc nañ ko lañ ci am mooy euh, mooy daal ñu ngi toog di xaar sa commandant bi nga xam ne moo yor moo yor bi mooy moom ne na day day day toog déglu xaw ma day dañu yóbbu booy bi hôpital tribunal dañ ko yóbbu dakaar mhm. lundi bii la ñu waxoon ne ñu après booy bi ñëwee dinañ dem tribunal ba léegi zéro. ba tey jàppuñu ko. Mhm. amuñu benn nouvelle booy bi jàppuñu ko mu ngi Dakaaru kii nekk ci jàmmam. gaañu googu ñu naan la ay dafa blessé yooyu yëpp amul parce que ñun ñoom ni ñuy renseigné woon ñun noonu la ñuy renseigné woon parce que bakkan bakkan la te bakkan bi ñàkk ñun xam nañ lu mu ñu doon ci jëriñ ñàkk nañ ko nag waaye du tax mukk tamit ñu toog yaa ngi dégg. di di di yaafus mel ni buñ ñu waxee dafa am fu muy mujj lu ñu ci mën a fekk nañ jël mais du ñu nangu tamit suñu suñu rakk dee ba pare ki ko rey nekk di wëlbateeku di dundaat maanaam waxuñ waxuñ waxuñ ñu rey ko waxuñ ñu def ko dara mais li yoon wax mooy ki rey nit. wala wala koo xamante ni dee na ci accident. ak lu mën a xew même daal la norme sax dañ ko war a téye xool ba xam ndax psychologiquement kii bopp bi mu ngi fi wala. Mm. parce que nit dafa fort. mais nga rey nit oto bu gën a rafet man mosuma teg bët man ba ma juddoo ba léegi. pour def choc sapeur yóbbu la gendarmerie yóbbu la police yóbbu la maanaam oto bi nga defee soog Mercedes nouveau modèle yi la beneen bu gën a lekk si ñëw jël si la yóbbu la Dakar man maa ko door a gis man. jërëjëf euh, Lamine. Euh, ñu ngi lay sant di la gërëm Lamine nag moom mooy magu euh, wala rak mag la si ki nga xam ne ni moom moo ñàkk bakkanam ci accident boobu li nga xam ne ma nga amee fële ci Kaffrine. Mhm, Kaffrine te doomu Yaay Fatou Diagne. Mhm. maanaam ki nga xam mooy meeru Ngàcc Ndawde. Euh, moom moo ko def <laughs> ñoom nag leen metti mooy situation bi ni nga xam ne noonu la gars yi bëgg a affaire bi mm-hmm. mu nekk nag loo xam ne yaakaar naa lu doy war la léegi Ablaye le temps que délai kii nga xam ne mooy di euh, président di yegsi daa mel ni que daanaka moom mooy woote mm-hmm. mën nga jël apprendre ma ngoog euh, xam naa daañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ak la xew ca naw nawde Euh, doomu yaay faatu Diagne lañu ñu tuumaal ne dafa mbëkk euh, kenn ca waa Saloum ba mu mujjee ñàkk euh, bakkanam xibaar googu nag dañ ko topp déglu ngeen ci kenn ci jege ñaale kaca loru wax na ci sàkku nañu itamit kañ ca tuumaal doomu yaay faatu Diagne bu fekkee ne mu ñuy dëgg mun na indi leeral ci li nga xamante ne moom